asalaamaaleykum sunu mbokk internet yi ñoo ngi dellusiwaat di leen nuyu di leen ziare di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla boole ñu jéggal defal ñu jàmm ak xéewal ak tawfeex sunu mbokk yéen ñu xam ne yéen a ngi safoo sunu chaîne bu bees bi di Wade TV piir ñoo ngi leen di ñaan ngeen di wéy di abonné yéen ñi xam ne yéen ay gan ci chaîne bi ngeen wéy di abonné ca di zam vidéo di ca diko ko zem wax dëgg yàlla seeni aajo rek ñooñu fi tax a toog ngir bëgg ñépp mën a jariñu ba tax na tey ji ñu indil leen béjjën bu am njariñ bi xamante ni yàgg nañu leen ko wax xañ na mosu leen ko gis tey ji ñu indi leen ko ngir won leen ko ngir képp koo xamante ni am nga si aajo rek nga wut si ndax kat béjjën bi képp ku ko xam rek war ngaa fexe ba am si mbokk yi ñu leen di wax tamit ni képp koo xamante ni bëgg ngaa listixaarlu nga jaar ci numéro yi ñuy affiché ci écran bi mbokk mi béjjën bi nag moom si li muy dox mooy kaaraange la goo xamante ni am na doole lool kaaraange ko am doole ngi nii képp koo xamante ni am nga ko de di nga të incha allahu sa béjjën bi de boo ko amee ba def ko nii xam ni moom la ko waxee incha allahu lépp lu war a ñëw ci sa kaw luy musiba béjjën bi de dina sab ba nga dégg ko sax xam naa ne mbir mbokk yi loolu de moom lu jafee gis lool la boo duggoon tey ji si oto booto bi war a def soog incha allahu béjjën bi dina sab ba nga dégg ko nga wàcc xool pexe moo def boo nekkoon tey ji sa kër nga am lanteek yoon ñu war la fa fekk di la jël si wala ñu war laa bett fenn si barab incha allahu suñu jógee de ngir jëm si yow béjjën ba de dina sab ba nga dégg ko yow ci say nopp ni am picc di sabe nga xool neneen noo def lépp loo xamante ni lu lay lor la luy ñëw dina sab ba nga dégg ko sa mbokk yi loolu de moo si gën a tuuti ndax béjjën bi nekk na kaaraange goo xamante ne boo ko amee bu ñëpp jógoon tamit di jéem si yow lu bon mun ñoo fexe fexe fexe fexe fexe ba loolee dal ci sa kaw béjjën bi kon am na njariñ lool mbokk yi moo tax tey jii ñu indi leen ko di leen ko présenté ngir képp koo xamante ni bëgg nga ko rek nga fexe ba am béjjen bi yéen mbokk yi nag yéen ñi xam ni yéenay gan ci sunu chaine bi di wàllu tv pir ñu leen di ñaan ngeen di abonné sa di ko jem jërë ngeen jëf